démb nag ku ne dégg na point de presse bi nga xamante ne def na ko mu am ay déclaration yoo xamante ne nii yëkkati na ko jëmale ko ci suñu njiitum réew ak corona bi nga xamante ne nii moom Bougane jàpp na ni business dañ ko bëgg a comme ni nga ko waxee rek Bougane Gueye Dany daal dinay def sorteem après Sonko ba mu ko defee li wax ci li nga xamante ni moom moo di situation actuelle du pays bi situation actuelle nag xel mi yëpp day daal di dem ci wàllum santé ndax jàngoroy coronavirus bi nga xamante ni moom moo fi lëmbee euh, kii nii di président bu gëm sa bopp moom daal mi ngi yëgle ni nañ arrêté li nga xamante ni moom moo di corona business ñu daal di concentré wu ci corona bi askan bi daal di wér ñu daal di jàll ci leneen. yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni Amina. bëri na ay njiital parti politique yuy génn sax di ci def ay déclaration mu nekk ay déclaration yoo xamante ne ni yu jara bàyyi xel la leneen li nga xamante ne ni mi ngi ci vox populi nag moom mooy coronavirus ndaxte fi mu toll nii ñu ngi gën a nekk ci tiitaange 48 heures ñu am ci 34 morts yaakaar naa ni métit la nakar la waaye lu ñu war a bàyyi xel la bu baax te lekatomb ba tax na 34 personnes daal dinañ ci ñàkkee seen bakkan en moins de 48 heures sans pour autant ñu daal di compter 14 yi nga xamante ni moom la amoon ci euh, dimanche bi appelé record bi nag gis nañu lu toll ci 20 euh, décès yoo xamante ni am nañ ko ci même semaine bi 76 cas grave yu nekk réanimation bu ñu saytoo nombre de cas actifs bi nga xamante ni moom moo fi nekk lu toll ci 1757 cas am nañ ko yu positif 1563 yëpp mi ngi bàyyi ko ci cas communautaire yi kaa communautaire mooy ki lay te doo xam fu la wàlle waaw mooy ñi nga xamante ne ñoo lay wàllee ci mbedd mi doo xam fu la wàllee te loolu nag di chiffre global yi loolu nag dañoo wax li nga xamante ne moom la ñu am ci semaine passée bi dong yaakaar naa ni cas communautaire moom bokk na ci cas yi nga ne ni comme mooy cas bi gën a garaaw cas boo xamante ne la dalee boo moytuwul rek di nga wàllu ñu baree baree baree bari baccalauréat ñu ngi ñu yëgal ni itamit tey la lépp di jeex waaye am na benn kawteef nag boo xamante ne am na ci Jurbel ndax Xaadim Mbuub moom la ñu jàpp mu jël place u gelam pour defal ko bag yaakaar naa ne lii moom leneen la. lii la euh, woykat bi naan mbëggeel a wóor mbëggeel mbëggeel doo nga wóor xaadim buub daal na koy wanewaat euh, ci bëgg bi nga xamante ne bëgg na ko copinam boobu toll ci 19 ans moom mu toll ci 22 ans daal di sacrifier boppam ngir copinam bi daal di am bag waaye bu ñu saytoo ci yeneen journal yi nekk fii nii ñuy gis euh, kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko moom xaadim buub yaakaar naa ne naa Ndiaye loolu moom nekk na loo xamante ne nii am solo la ba na bari na ay journal yoo xamante ne nii ñëw nañu ci mbirum xaadim buub moomu comme ni ko journal bu Vox yi waxee noonu la ko journal bii di l'Observateur waxee mu ci yëkkati ay kàddoom mu nekk ay kàddu yoo xamante ne nii nag du ay kàddu

fu dul ci mbëggeel ndax mi ngi yëgle ne euh, ci euh, fi nga xamante ne foofu la ñu waroon defee bac moom euh, dafa bàyyeekoo ba Jurbel te këram ñëw foofu noonu chaque matin copinam bi day daal di quitté këram déguisé wu comme que ni day defee examen bu dikkee daal di solal kii nii di xaadim buubu yëre yi maquillé ko ba mu jekk musóor ko def na ko deux jours nag troisième jour bi la benn euh, surveillante daal di koy gis rek xam ne kii nii amul dara lu saf ci moom jigéen donte sax maquillé wu na sol na robe bu musóoru na def na lépp naka noonee la daal di woo président jury bi ñu ñëw teg ko loxo waaye premier cadre yu mu yëkkati rek moom moo di avier nee na je l'ai fait par amour bëggoon sama copine daal di réussir bac bi ndax moom daaw la am bag L2. ah yaakaar naa ni nag Amina Ndiaye loolu moom la ñu koy bàyyi ak yoon mu daal di ci liggéeyam <laughs> lu doy waar la daal Vox Populi des ak ñun ci programme des emplois des jeunes yaakaar naa ne lii moom bi ñu ko dalee wax ba tey duñu si jugee ndax boobu ba tey nag ndaw ñi ñi ngi gën a chômer. waaw programme d'urgence la ñu wooye ko xëyu ndaw ñi euh, travail des jeunes ci français comme ni nga ko waxee rek emploi des jeunes boobaak léegi nag ñu ci bari ñoo ngi nga xamante ni am nañ ko ñi nga xamante am ñu ko tamit am na yoon bu ñu leen teg pour ñu mën a am ci liggéey boobee ba tax na journal observateur daal dalaloon na dal bu yaatu kii nii di ministre Dame Diop mu daal di waxaat bu baax a baax ci délai yi délai yi nga xamante ni ci lañ ko fixé nombre d'inscrits nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ak salaire des emplois loolu yëpp daal dina ci yaatal ci journal l'Observateur à la page 3. à page 3 boo ko jëndee rek di ci gis li nga xamante ne ni mooy naka ngay def ba bokk ci xale yi nga xamante ne ni dinañ leen jël ñu commencé di liggéey l'Observateur am enquête bu yaatu boo xamante ne def na ko ci génn àdduna Lobé Ndiaye ñu yëgal ni ab féticheur nag moom moo jël bakkanam. comme ni nga ko waxee rek Lobé Ndiaye ginnaaw ba mu àdduna naka rek tis lañ doon xëyee saa su nekk ci journée yi li gis li nga xamante ni noonu lañu def bare ko famille naka lañ koy dundee waaye nag révélation yi nga xamante ni euh, def nañ ko waa gendarmerie def nañ ko ba ñu tegee loxo benn féticheur fële na la ci diwaanu Thiaroye Azur Lobe Ndiaye ginnaaw ba mu quitté këram dem ba ci palaasam benn borom moto daal dina koy déposé waat ci diwaanu Thiaroye Azur mu dugg kër euh, ki nga xamante ni moom moo di féticheur bi féticheur bi nag moom ak Lobé Ndiaye yàgg nañoo jëflante li nga xamante ni moom moo di wàllum seet ak saytu ko dem ci féticheur moom xam nga li la fa yóbbu féticheur bi moom moo dóor kuur kii nii di lobe Ndiaye mu ñàkk bakkanam teg ci tamit nag mu daal di koy jëm ay coup de waaye yemu ca am na yeneen ñaari complice yi ca nekk ki nga xamante ni moom moo ko transporté ci oto bi ci taxi bi ak keneen ki nga xamante ni moom moo nekk femme de ménage yu féticheur bi moom moo daal di nettoyé bépp deret bu nekkoon foofu yàggul dara suñu borom daal def lumière ñu daal koy teg loxo moom féticheur bi mu yëg la ni loolu yëpp lii dong la woon sacrifice bu maag tourné la woon waaye li nga xamante moo wér te woon borom kër gi luwe kii nii di féticheur bi nee na lobe faal lobe njaay yàgg na fee ñëw dem na sax ba t-shirt bi li leen wan yoon bi nag du leen lu dul ginaar gu weex. ginaar weex. waaw ginaar gu weex euh, la lobé daal di jënd ginnaaw bañ ko déposé ci moto bi ba pare daal di koy dugal ci kër féticheur bi loolu yëpp mi ngi doon tourné ci autour sacrifice ay ñaan ak li nga xamante ne moom lañ la santoon ginaar gu weex googu nga xamante ne jënd na ko daal di ñëw ci diwaanu Thiaroye Azur ginaar googee lañ daal di topp ba diwaanu yi ñu ñëw laajte waxam fi am na féticheur ñu daal di koy wan ci la ñu def seen ay saytu def seen civilu ba teg ko meloon na ni tukku su bënn saañ ba réer ndax waa askanu caaro yëpp jóg na ni dañuy faat bakkanu euh, kii nii di féticheur bi naka noonee la gendarmerie intervenir ñu jóge fa daal di demaat ca gendarmerie ba tamit nii lañ koo soxla pour faat bakkane mujj nañ leen a calmer waaye enquête bi yemul foofu. enquête bi du yem foofu ndax journal bu libération du ko bàyyee noonu Amina Ndiaye ndax yaakaar naa ne lépp loo xamante ne nii mi ngi ci réew mi lëndëm nit ñi soxla ci ay leeral ñoom di dañ ci bay seen waar bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa ne moom faat bakkan amul lu ko gën a rëy. laaj man naka la waa tudd moom féticheur bi ma daal di la koy tontu léegi ca bu gaaw. moom féticheur Mali bi. waaw ban tur lay du Amidou Sidibé lay wuyoo moom nag dafa dem ba borom kër bi ko luwee ci jëmi boppam sax da ko ragalay xal ndax dafaa ñëwoon ca kër ga jël ñaari néeg ba mu jëlee ñaari néeg weeru dee ba mu fay borom kër gi daal koy naanal mandil ko jeex jeexi ci kaw mu daal di libéré benn chambre bi waaye teewul ni mi ngi ko amee benn arriéré wu. un million deux cent francs CFA ndax dafa lànk di ko fay te moom saay bu jógee dal ci kawam pour mu fay ko xaalisam rek tëdd feebar lay mujjee woone huissier def na lépp waaye féticheur bi dëgër bopp rek ba nu mu fàttee bakkanu kii nii di Lobé Ndiaye jakartamaan bi nag moom moo leen indiqué fan la wàccee Lobé Ndiaye waaye tamit Lobé Ndiaye ba mu génnee fan la demaat ba jënd ginaar gi ginaar gi weex gi daal moo leeral yëpp tani jawasaa yaakaar naa ne am na solo Amina Ndiaye lu mel ni nag bari na ci dëkk bi am na ci ay kër yoo xamante ni boo fa demee borom kër yi ñu ngi souffert bu baax ndax dañuy luwe ab sëriñ maaman duñ la fay weer ba pare di la menacer yaakaar naa ne ku mën moom yooyu yëpp du ko ci def sax fekk les arènes daal di ñëw ak ñun ci ñeenti xale yi nga xamante ne nii ñoom ñoo def exploit ci saison bi Sa Thiès Gris ak Diène Diouf Kairé comme ni nga ko waxee rek ñoom ñoo daal di def euh, exploit ci saison bi xamante ni yaakaaroon ne day explosif saison ba daal di mujjee nekk ab cauchemar Sa Thiès daal dina ci am ndam Gris am na ci ndam Franc am na ci ndam Diène Kairé am na ci ndam looloo waral journal bi daal di leen di tuddee les quatre fantastiques de la saison yàlla na leen suñu borom bi taxaw bu baax a baax ba lépp lu ñu bëgg rek suñu borom yeggali ko ba jee ginnaaw bu ñu reporté combat bi nag am na ay kàddu yu mu wax nee na nag des ma décidé pour bañ a waxati sax si Yaxya Joob Yékini waaw gis na ni saay bu waxee jëmale ci Yékini rek ñu bari jàppee ni farfar loola wala dafa jël Yékini féetale ko ci kanamam wala Yékini dafa jël Bombardier féetale ko ci kanamam ba tax na nag jàpp ne bépp sorte bi muy defar du tudd baatu Yékini du ci tudd tudd Yékini bu ko defee lépp ñëw à la normale gis na ni kii nii di euh, Balla Gaye ni mu ci woon ba tuddee turu Yékini ci kanamam boobaak léegi nag Balla Gaye mi ngi wax di xul tur donc Yékini daal da koy jëlee tegoo ko da ko teg li wétta woo tamit tamu wax ko mooy que ni saison bii nii yàq na du bari Euh, jun ginnaaw ba ko naataango bi laajee ba xam pare nga pour daal di koy def à huis clos dañu moom amul lenn lu muy décidé promoteur mooy décidé ñoom ñu exécuté. te leneen li mu ci teg mooy lundi bi ci lundi tey wii lay commencé waat ay entraînement am yaakaar naa ni nag mooy secret bi Amina suñu làmb daal di ñëw ak ñun itamit ci Balla Gaye numéro 2 ginnaaw bi ñu reporté combat bi moom it ci na ay kàddoom ndax nee na bëre moom nekk na loo xamante ne manqué na ko torop torop torop ndax bëggoon na ko. dama ko namm loolu la wax damaa namm bëre ci jëmi boppam ça devait être une fête fête la waroon na doon ci saison bi combat yi nga xamante ne moom la am yëpp moom Lion de Guédiawaye waajal boppam takku ba mel ni naana suñu borom di weddi nag mu daal di ci yëkkati ay kàddu nee na namm na bëre waaye nag day mujjee nangu ndogal rek. day mujjee nangu ndogal. saison bi nga xamante ne ni yaakaaroon nañu ne saison bu explosive lay doon ndax combat yi fi amoon ñu jékki-jékki indi ñu nataalu Tafatine ak Boy Niang numéro 2 nañu ay gént la saison bi mujjee. ay gént la mujjee mujjee ci moom nee nañu annoncé woon nañ ko explosive saison 2020 2021 ñëpp jàppoon nañ ne balaa mu tàmbalee ba tey saison bi moom moo ci naroon a dàq waaye nag seytaane daal di ciy dugg affaire bi daal di tourner au cauchemar ba jamono ji daal moom sëngeem la mëri mujjee def ak promoteur yi yaakaar naa ne leeral loolu rek la woon de waa lii la ñu seen xibaar revue de jaajëfal leen ñëpp jox leen dig daje ba suba ak jàmm allah jërë ngeen jëf